mbokk yi ñu seetaan ñu wéyal leen li nga xamante ni mooy reportage waajal tabaski bi comme nañ ko xamee rek yaakaar naa ne fi mu ne réew mi fi mu toll soqali ko gi mu soxla consommer local moo ci jiitu moo tax dañuy dem fi nga xamante ni mooy village artisanal bu Njaareem jéem a xool nag li nga xamante ni moom lañ waajal ñi nga xamante ni mooy askan wi ci wàllum tabaski bi. asalaamaaleykum waa Njaareem asalaamaaleykum waa adduna bi yëpp waa Baol Time sëñ Mor ñu ngi rafetlu. reportage bii nga ñëw pour def ko village artisanal bu Diourbel di ñëw ci fi président bi bëgg muy ma local fi réew mi soxla fi réew mi bëgg jamono yi muy li ñuy dunde ñu koy bay li ñuy dunde ñu koy liggéey li ñuy dunde bépp artisan taxaw ci pour dooleel secteur bi secteur de l'artisanat loolu am na solo. Hmm. amul fu waaw dàll bi gars yi bëgg nañ ko trop design bu am solo la pour tabaski bi bii gis nga ko modèle bu rafet la gars yi bëgg nañ ko ci tabaski bi bii ver militaire bi la day am couleur yëpp coupe la boo xam ne mën na def mën na dem fu ne mën na ànd ak lu bari gis gis nga maron bi mais duñ dañu yëngatu ci même dàllu jigéen dañ ciy yëngatu lii ay décolleté la pour julli bi nga ñu ngi nii bi la waaw lii nii ay décolleté la pour julli bi parce que lii dafa am solo trop parce que sénégalais ñu ngi commencé gëm ni dañoo war a fekki sunu mbokki artisans yi li ñuy liggéey ñu leen ciy dooleel parce que loolu mooy tax dëkk bi jëm kanam loolu mooy tax Sénégal jëm kanam ñuy kontaan ci bërki demb rek président def na lu mel noonu parce que nee nañ ci jamonoy Senghor la loolu musa am ba léegi président bu fi jaar defoo ko mais son excellence Bassirou Diomaye Faye ñëw na village artisanal bu Soumbédioune dundal ko fu artisan nekk rek bi mu gisee loolu xolam sedd na parce que da ko defal artisan yëpp 14 raison yëpp la ko defal képp kuy artisan rek defal na la loolu ak corps boo mën di nekk ñu rafetlu ko trop kontaan ci trop parce que moom gëm na ko parce que def na ko wax na ko conseil des ministres wax ni secteur de l'artisanat da koo ñor te jëfe na ko acte bi mu def bërki demb ci village artisanat bu Soumbédioune ñu ci kontaan trop di ko bége di ko encouragé te di ko ñaanal yàlla gën koo dëgëral gën ko may jàmm bépp kuy képp kuy artisan daal war a domaine boo nekk war nga caa gën a góorgóorlu di fexe muy gën a rafet di gën a dëgër di gën a neex sénégalais yi pour sénégalais yi mën a ñëw pour dund loolu parce que bu njëkk gars yi amoon nañ complexe bi mais léegi mi ngi dañ sénégalais ñu ngi comprendre léegi ni dëkk bu ci nekk ña fa dëkk ñoo ko mën a jëmale kanam te loolu bay saweewu tànk te nag sunu artisans yi li ñuy liggéey su région bi yëpp ko soxla moo xam mbiru bijou la moo xam mbiru dàll la moo xam mbiru saag la moo xam mbiru ñaw la mode moom Sénégal des ci ginnaaw loolu nag ñu ngi ciy kontaan trop te parce que a yaa ngi jéem a comprendre léegi. jërëjëf bi ñu xamoon oh. jamono yooyu ñu génn at euh, oh. oh. eh, jafe-jafe. yi ñu ngi koy am ba léegi mais fañ ko daan jëlee rek mooy conteneur yi nga xam dañuy jógee Europe ñu wàcce ko Dakar wala Touba moom la ñuy dem rek jënd ci pour jéem a produire bañ sunu production mën a bañ a mais ñu ngi am yaakaar ni ci kanam. avenir Sénégal fi ñu jëm mooy que fexe ba mu am bañ am tannerie bu mag boo xam ne ci mbirum der moom kenn dootu ko jooy moo xam côté Touba lañ koy def région de Diourbel moo xam Ngaye lañ koy def mais fu ñu ko ci man di def rek Sénégal lañ koy def. ko defee sénégalais yi mën na seen jooyu mbirum der boobu mbirum cuir boobu mu mën a seen rangooñ mën a fer waaw. Eh, ñoo ngi client yaa ngi ñëw par ndànk parce que am na ñoo xam ne léeg-léeg nga gis koo xam ne dafiy dugg ne la vingt ans dugguma village Arsenal mais comme li ngay def ni liggéey bi ngay def nii jéego yi ngay def ñu la ci remercier bu baax ñu koy gis ci net bi dañ naan ah li am na Arsenal kon danañ ko ñëw xool si looloo tax nit ñi ñu ngi ñëw par ndànk-ndànk mais danañ jàpp ni danañ gën a ñëw parce que euh, affaire yaa ngi jàll ndànk-ndànk nit ñaa ngi koy gën a xam jërëjëf Père ko wanee modèle lu la. wala lan la ñu composant. pour cent cuir la parce que am na ci yoo xam ne sax dàll yoo xam ne sax dañuy def ci kaw cuir fi ngay teg sa tànk ñu def ko synthétique mais yi ñuy defar fii Jurbel fi ngay teg sa tànk lépp cuir la. parce que loolu la euh, liggéey bi laaj parce que nit ñi léegi seen i tànk wéeratuñu léegi dañoo bëgg. cent pour cent cuir buñ ko solee mu mën a yàgg te du def dara ci seen yaram moo tax ñuy def fi nga teg sa tànk sax kiwiir la voilà. Euh, jërëjëf euh, ba léegi ñuy woyal waxtaan wi foofu ñoo ngi li nga xamante ni mooy euh, tabaski bi yaakaar naa ne sol yëre ci boole ci ci mooy. mooy dàll jigéen ñi ñu gis na tamit. Hmm. def na ci yu mucc ayib. Hmm. dàll yu rafet. Hmm. est jigéen ñi xam nañ loolu que tamit daa léegi defal ni yaay génnaat. ko replacer waaw am na am na am na suñuy clients yu nekk ci sous raison bi am na ñoo xam ne tamit ñu ngi ci biir Sénégal ci diggante Ndar xam nga Kaolack am na diggante dakaar Thiès say clients ñu ngi ñëw. ñu ngi lay contacter nga di leen envoyer affaires yi ba ci sous région bi comme Gambie Mali comme Guinée léeg-léeg nga am ñoo xam ne xamoon nga ak ñoom da leen di envoyer affaires yi ñu leen envoyer yi parce que téléphone yi rek ñooy liggéey léegi. voilà jërëjëf euh, mbokk yi ba léegi ñoo ngi village artisanal comme ni ñu leen ko waxee loon nekk ci waajtaayu euh, tabaski bi dëgg la ko sol yore yaakaar naa sol daal da nga ci boole nag ay takkaay ndaxte mënut a ñàkk surtout nag ci wàllum jigéen ñi ñu ñëw fii euh, ci benn bijouterie bàyyi leen ñu présenté wu ñu wax ñu ne lañu ñu waajee julli ci. asalaamaaleykum maa ngi ziare ñëpp man la Abdoulaye Kim bijouterie Daaru Minam place Asgay nekk fii ci artisanal maa ngi sant ñëpp ziar. bëreetul dara waaye comme ni ko waxee sànq suñu njëlbeen wax. Hmm. ku wut yére wuti daal yaakaar naa ne surtout bu dee jigéen ñi wuti takkaay est ce que tey jii eh, ngi ñëw waaw waaw jigéen ñi ngi ñëw waaw ñi ngi ñëw di takkaay ak lam yi ak seen i ensemble yooyu noonu ñu ngi koy ñëw di ko jënd si waaw. seen ensemble yi muy doon mooy day bokk ci yére yi wala day doon caq lay nar la. waaw caq lay nekk day am or argent loolu lay nekk. ak jaaray waaw ñu ngi koy jënd si bu baax. Hmm. Hmm. kon client yaa ngi ñëw bu baax waaw ñu ngi ñëw waaw. ñu ngi sant yàlla ñu ngi sant yàlla bu baax. voilà ñu gis ne ci biir euh, bi ñu xool. waaw ah. fii gis nañ fi décor bi rafet na loolu chaîne yi bëri na donte nag xamuñ ci lu bëri. waaw premier bee ne tey jii. waaw euh, boo ko doon wax ni tey jii mooy ban façon. bee mooy seen agent blanc yi. waaw yooyu mooy seen agent blanc moom la jigéen ñi xewal léegi. waaw ah, moo xew léegi waaw. moom lañ hmm. takk lu bari. waaw moom lañ takk bari waaw léegi moom lañ jël léegi. ak chaque événement ay yu génn waaw léegi yee moo génn nag. génn. waaw moo génn léegi waaw. kon bi waaw argent blanc bi la waaw. moo nekk buzz bi ak. lamit tamit waaw surtout góor ñi tamit yooyu leen faral di di sol mooy jaaru àq yi nii. Mhm. moo nekk nii moom lañ xewal léegi. waaw ak jaaru téere tamit am na. jaaru téere mooy yii nii. waaw def ko ci biir waaw. mais lépp xaalis lay nekk. lépp xaalis ak xamul ci bari. waaw damay am na foo yi ngeen am. waaw ak daa bëri am paire yoo xamante ni foo la am original la waaw noonu la demee. ok original yi ngeen original yi waaw. fan ngeen da koy commandé ëpp màkk lay jugee hmm. waaw voilà ñu gis naa tamit waaw waaw mooy fitis yi. waaw fitis yi bu jigéen ñi la. waaw am na plat yoo xamante ne pour góor la dañ siy bind tur. Mhm. waaw yoo la demee. yeneen yi ba léegi mooy jaaro jigéen mooy am kër yi mhm. moo nekk nii jaaro jigéen yi la. waaw. li ñuy liggéey xaalis rek la. waaw or la xaalis. bu mm. ñu koy wax sàcc yi tam tam ñu ne ñu bàyyi la xel lu bari mbaa leen di fàgg wala amoon ci jafe-jafe ci boobu. non yi moom mooy loolu ñi si ñi si ñi leen di bu baax daal. Mm. kon daal lépp gi dox nga xamante ne nii moom la ñuy tëddee ci tabaski ak ñi xamul village artisanal xamuñu li nga xamante ne mooy boole cuir vicieux nekk fii di defar daal di mucc ay nekk fii defar saa yi mucc ay defar daal jigéen daal góor. nit ñi parce que léeg-léeg nga dugg ci benn jag dugg jël Jakarta ni ko village artisanal laa jëm sax mun la fuy foofu te ñëpp xam nañ hôtel ñëpp xam nañ stade ñëpp xam nañ hôpital parce que benn route la ñëpp xam nañ marché bi mais am na ñoo xam ne ñi xamuñu ba fan mooy village sax artisanal mais comme ni ñuy def nii dana tax nit ñi di gën a xam parce que lépp lu ñuy liggéey ci loxo rek boo ñëwee village artisanal da nga koy am. waa Jurbel Jurbel ñàkk ñu ay kilifa bëgg nañ lu baax bëgg nañ produit bu am solo te loolu góorlu nañ ko ba am ko fii la village artisanal ñu ngi lancé kilifa yëpp comme Matar di ñu koy nuyu bu baax di ko. félicité liñ ko nommé muy doomi njaareem bëgg njaareem ñu koy woo ci village Arsenal ñëwoon na fi jamonoy seet setal bi président Bassirou Diomaye waxoon ñu ñëw ci mu ñëw fii li euh, seet si ñu ñu ngi koy woowaat ci li nga xam ne mooy opération tabaski bi mu ñëw xool produit yi dàll yu rafet yoo dal jigéen a ngi fi dàll góor a ngi fi dàll xale ngi fi mu ñëw seet si affaire bi jëmmal li président def ak yeneen i kilifa yoo xam ne ñu ci dëkk bi. Moussa Balla Fafana doomi njaareem la mais du ñu yem ci ñooñu képp koo xam ne doomi njaareem nga nga yoroon ndambal tànk wala nga yor ko wala nga mus koo yor lu suuxat njaareem moo la intéressé doomi njaareem mooy def loolu au lieu ñuy dem Dakar dafa jënd dàll yi ñu ñëw fii village Asna ñëw ci bi dàll yi. encouragé ñu loolu dafay am solo topp ñu ci woo doomi jaarim yëpp eh, eh, yéen a ko gisandoo loolu mu nekk lu mucc ay loo xamante ne nii ci ay dàll la muy dàll jigéen dàll góor lépp nag nekk der maanaam lu jafe loolu fii lañ koy defaree village artisanal eh, bu njaareem waaye tamit appel bi yaakaar naa ne ñi nga xamante ne nii ñooy kilifa yi dañ ko dégg surtout nag ki nga xamante ni mooy le ministre Moussa Balla Fofana ak ki nga xamante ni mooy Matar Sène récemment nommé délégué général à la protection ndaxte njaareem xarañte gi am na fi loolu yéen ko gisandoo loolu ci ay ci ay ay takkaay jigéen ñaa ngi ñëw bu baax a baax waaye gis ngeen appel bi mujjee lancé moo di ñu wutal leen benn comptoir commerciaux dana leen gën a yombalal seen liggéey yaakaar naa ne loolu président dana ko dégg euh, ak ñi nga xamante ni tamit mooy askanu Jurbel nañ gën a fréquenté lii di village artisanal mbokki yi dañu leen indi loon tey jii seen reportage waajal tabaski ci biir village artisanal laal li nga xamante ni mooy wàllum dàll yi ak li nga xamante ni mooy wàllu bijouterie yi gannaaw bi ñu laalee li nga xamante ni nii euh, démb mooy wàllum yëre yi di leen jox dox daje ak beneen reportage waajal tabaski